bismillah wasalaatu wasalaam ala rasulillah mbokki jullit yi mbokki taalibe yi rawatina murid yi féete Île de France kuréel gii di 18 safar moo am mbégte di leen yëgal ndoorteel waajtaay yi jëm ci màggal ak Touba gi waa Île de France di amal at mu jot te ji nu koy séentu ci weeru octobre incha allah comme ni ngeen ko xamee màggal gi bis la boo xam ne Cheikh Ahmadou Bamba Khadimu Rasoul moo ci joxe ndigal santaane ñu jëmmal ko ci jaamu yàlla bernde jàng alxuraan ak màggal gi nu jëkk a taxawal ci Île de France ci 2017 budget ba mu ngi tolloon ci 80 000 euros ba ca topp di 2018 yeggoon na ba 103 000 euros ci Pastef ak taxawaayu daayira yi mbokki taalibe yi ak mbokki jullit yépp ren jii nag yéene ji mooy yeggale ko ca budget ba mu doonoon ca 2018 maanaam 103 000 euros ñuy fàttali ni addiye ja jëm ci xalif général des mourides ci koom moomu lay bàyyi ko warteef yooyu nag ku ne xam na ni ci taxawaayu mbokki taalibe yi rek les ko mën a jëmmale ba tax na kon ni ñu ko defe woon at yi weesu barkellu yi mënees na ko jottali ci anam yu bari benn ci anam yooyu di compte litre bi ñu ubbi ba ca topp di compte bancaire ku mu soob itam mën ngaa ko ak sa jëwriñi daayira wala boog nga woote ci numéro téléphone yi ñu joxe ñu fàttali ni ànd bi mbokk taalibe yi di ànd di taxawal màggal gi bari na ay njariñ ginnaaw yombal gi mu yombal liggéey bi gën naa rataxal diggante daayira ak kuréel yi yëngu ci il de france tax na itam addiya ji jëm ci xalif général di murit egg ci dayo boo xam ni daawu ca yegg nuy fàttali ni bi Cheikh Ahmadou Bamba xaadimu di digle màggal gi dafa wax ni képp koo xam ni mbégam sa mbég la saa su bis bi dellusee na nga ko ci santale yàlla sunu borom limu nu sëriñ bi di woo nag day jaamu yàlla gi gën a kawe ngir li doomu aadama bi am ba di ko sant yàlla sunu boroom moo ko ko jox xel mi mu am sax bay sant yàlla suñ borom moo ko ko baaxe tàbbal sunu cant ci cantuk sëriñ bi nag dana ko jox dayoo bu mu amul woon bu ko defee sunu definu bopp aqsamtu billahi inni li nabi abadan xilun waxibun wa ma abaahu yaabaahu nabiyuna almustafa xayrul wara xaradi fi kulli cheyin wa ma yaabaahu aabaahu ci loolu nag nu ngi ñaan képp ku def sa alal ci màggal gi wala sax nga yaatal xibaar bi yàlla na borom bi tàbbal la ci ñaanuk sëriñ tuubaa gi di waqdi xawaaij allazina daamu fi xidmati wa hablahum maaraamu wasalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu